Heavyweights.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 ndaw si di victime bi te tuumal ancien militaire bi nee ñu jigéen buy sëy ba am juróomi bant mbir mi nag nee ñu nii la demee ndaw si dafa ñëw ci ancien militaire bi nga xam ne nii léegi jakarta man la ne ko day dem fële ca kumpentum ñoom ñaar ñu waxaale ba juboo ci huit mille francs ancien militaire bi di jakarta man bi ne mun na ko cee yóbboo ndaw si nag lu tax mu doon dem ca kumpentum googu nee na jëkkëram jii di enseignant moo tawat ba tëdd ci lal bi dal di koy yebal ngir mu jëli salaire am waay ancien militaire bi nga xam ne jakarta man la bi mu dawalee ba ci digg àll bi dafa dal di arrêté moto bi ca village bu ñu naan Likunda ah fukki kilomètre taqale ko ak tàmba sawaay bu mu yegsee ba foofu ne ndaw si na wàcc ndaw si nee na mu wàcc njortam demul benn yoon ne ji dafa am lu ñaaw lu mu nar ci moom ci noonu la ko waa ji commencé wax ay waxi naq sa xandang waa ji di ko cherché ci côté bu nekk ndaw si mu ne mu lank ba tëdd ci naaj bi gannaaw bi ko ndaw si lànkale la ancien militaire bi nga xam ne léegi Jakarta man la dal di changer stratégie pojji paaka menacé ndaw si ne ko def li ma bëgg rek wala ma ray la ay waay ndaw si nag nee mu mujj sédee dal di mujjee nangu waa ji dal di koy yóbbu ci biir àll bi ba ci ab bërëb bu laqatu dal di koy violé waay kii bon waa ji bi mu defee ñaawte fam ba ba noppi bàyyi ndaw si ci àll bi la def ak état boo xam ni état bu doy waar la laa ndaw si ci état bu doy waar boobu la delloowaat këram bi mu delloo këram dal di koy nettali jëkkëram ak waa famille bi ci la ñu porté plainte ca brigade bu nekk ca localité ba waaw góore waay dal di ut certificat médical buy wane ne egg nañ ci kawam ci noonu lañu ñu arrêté ancien militaire bi nga xam ne léegi jakarta man la ma bay bàyyi leen violé la wax dal di koy defeere di ko toppee li ñu naan viol ma ne ko ak atte yiñ ci teg de tey nga dee ca kanamu attekat ba nag ca tribunal grande instance bu Tambacounda Kolda waa ji dafa weddi ba tëdd ci naaj bi ne ndaw si lim koy tuumaal amul ndax dëgg-dëgg nag li am mooy ñoom ñaar bi ñuy seq mbir mi ndaw si dafa d'accord moom mu d'accord tubaab naan ko ma waaye nag li ci doy waar mooy ab client bu ñëw ci yow ne la yóbbu ma fa bërëb ana lan moo ci indi ba yegg fi ngeen yegg ma ne moo jaaxal ñëpp waa ji nag gannaaw layam yu rëy yooyu yëpp konweñ kurul benn yoon attekat bi ba tax fi mu ne mujj nañ ko daan fukki atu kaso yoo xam ne dana ko tëdd <laughs> ma ne fukki atuy kaso laaj mooy est-ce que fukki minitu bànneex jar na fukki ati kaso <laughs> ma ne ñii dañoo feebar de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Louga romb na doy waar ab émigré daal ma fa soupçonné jabaram ne daf koy trompé ak beneen waay mu dem ca buntu kër waaja dal di door ñaari balu fetal ci kaw ngir tiital waaja ëskëy boobu nee nañu ca Suisse la nekkoon moom daal bi mu nee cëpp ca Louga ay fan lañ ci teg mu jël piste installé neuf millimètres am dal di wutu kër beef bi nga xam ne moom la njortu ne mooy yoxo su soxnaam ci suuf sa waay ba mu yegsee ba ci buntu kër gi dal di rocci pistolet neuf millimètres bi ñu naan detawaay mu dóor ñaari tiir ci kaw tel tel ngir tiital waa ji li ci doy waar nag mooy ndekete immigré ba buntu kër gi mu taxawoon di dóor bali fital yi du buntu kër waa ji mu njortu ne moo doon yoxo su <laughs> baaxul de te fiiraange mën naa defloo nit lu ne waaye yéen góor ñi bàyyi leen jabaru jàmbur yi ay waay bàyyi leen jabaru jàmbur yi mu doonoon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz